jërëjëf mbokk yi am mbégte kontaante bu baax a baax pour ñu ñuy suivre ci ETDR Média comme ni ñu ko defee chaque toppal làmb ak lu ci lépp lu nga te ni rek muy actualité nekk ci réew mi dañ koy topp jox ko ñu ñuy suivre dañuy bàyyi xel à tout moment di wax ngeen wéy di abonné ah di bës notification bi di xaar vidéo di wàcc en temps réel ngeen koy am comme ni ngeen ko bëggee ci fi nga xam te mooy ci ETDR Média tey nag maa ngi seet si le grand technicien Leuz ñu gën ko xam ci làmbaloog fas yéene waxtaan ak moom làmb ji nga xam te ne bi mu suñ kanam coow li bari na nag ñu ngi jëm ci combat bu am solo lox ci diggante Boy Niang Modou pour le premier janvier a Gaston production dañ koy nuyu bàyyi ko mu nuyu ñu ñuy siifur ko defee ñu ñëw ci waxtaan bi làmb Leuz maa ngi lay nuyu di siyaar waaw waaw Thier ñu ngi lay fay di nuyu ñëpp waaw di masawu ñëpp di wax salaamaaleykum salaamaaleykum monde entier waaw di nuyu ñëpp di ñaanal ñëpp di sàkku ñaan si ñoom di leen wax làmb daa metti làmb làmb Thier daa metti di masawu mbër yi waaw di masawu promoteur yi ak eh, jaaykat yi gis nga ceer ceer ni promoteur il faut ñu yërëm jaaykat yi tamit ndax dañ ma wax ne ma làmb làmb comme que da ngay wax te yow ñun yaakaar nañ ne yow dëgg rek ngay wax ñoom jaaykat yi de fekk ma si scène bi si si stade bi di ma jooytu seen i mbir ñu dagg seen i ba pare dagg seen xaalis ba pare ñu dagg loo leen ko ñu ne du ngeen dugg si stade bi xam nga loolu dafa metti si jigéen ñu yenwaat glacière yi yenwaat affaire yi dem te làmb biñ koy jooy dañ doon facteur de développement la ku ne mën na see développé wu. kon ne promoteurs yi di yërëm jaaykat yi quoi parce que jaaykat yi tamit loolu mooy seen bénéfice du dëgg nit kenn du ko xeebal la am parce que mën nañ see dundal seenu njaboot. su tuyaaba ji mën naa am si promoteurs yi ñu am si tuyaaba ju baax mais di jàpp bu jaaykat yi di ñu ñaxal jaaykat buy yàq laa mu fu ma am jaaykat buy saboté laa mu fu mu am kon saxaar lu mu fees fees am fu xottu gerte xaj wala nuyul ma sama yaay waaw na si promoteurs yëpp bàyyi xel. mais nañ ciy bàyyi tamit tamit duñ bàyyi xel tamit promoteur bi nga xam tamit moo jël centaine de millions investir bis tey kooku bëgg ku ko taxaw ci sponsor amu ko est nekkul moo waral tamit ñuy def yenn jaay bañuñu bañuñu ceer déggoo lañ la wax dañuy dagg billet ñoom seen i billet ak suñuy billet bokkul mais bi yi ñu leen di daggaloo dagg nañ ko mais buñ duggee ba si biir duñ jaay duñ circuler dañ leen di tafaar te loolu combat bi moo nuy tool bu dee café la mën nañ bañ sax kafe gi dugg di tuur gaay ak yooyu mais bu dee ay ndox la ak yooyu ndox foo nit nekk bu yàggee mar dafay dugg yenn saa gars yi dañuy mar bëgg a génn mais stade bi dina toll foo xamee boo génnee doo duggaat am déet ceer segam ñun ñu yor bat yi ñooy génn duñ duggaat gën kuy jaay waaw kon maanaam dañuy yërëmante rek parce que promoteur bi bu pertee kan moo koy joxaat xaalis mais bu bénéfice kan lay wax bénéfice na mais li muy liggéey si la mën a baax sama gis-gis parce que ñoom ñuy jooy ba tax ñu koy wax nii ay jigéen lañ waaw matériel du jigéen góor gu ne da saa war a jàpp loolu laa gis rek waaw nu ko ñëpp ji gëna a yërmande rek mais xam nga ne ku tek xaalisam bénéfice la bëgg mais comme que dag nañ bi kañ nak ceer ni yom nañu jappalé pour ñu dugg jaay waaw mais tak lo leen biye ba paré pare jaay ñu tamit ñu yobbu yóbbuwaat seen mbir loolu lu yoon loolu ñakul ne gaay ñi ngi lay suivre te dinañ ci bàyyi xel bu baaxa baax mais lamb euh semaine yi ñu génn gis nga lamb euh événement yu mag yi nga xam ne génn nañ ko lamb da mel mi ngi doxola bima ñëw ak légui rang yi jub na wala jubut ah, waaw sante yalla nak yalla na ñeneen ñëwaat rang gëna gën jub yeneen ñeneen nit ñu mel ne làmbaloog ñu ngi si ginnaaw mais na gaa yi yaatal seen yi ñëpp dugg ku wax lu rafet ñu capturé parce que làmb nekkoon na si biir cin li mais bi cin seppe seppee biñ dajee làmbaloog xam ne ne làmbaloog mën naa ne mais nañ yëngalaat cin li xoolaat yeneen gaa yi ne yeneen gaa yaa ngi développé parce que tey ji làmb ñetti la ceer bi nga fekke bi nga nettali ak bi ak bi nga wuute waxal kenn xamu si beneen bu dul boobu ñetti yooyu mooy àddunaat àdduna li nga fekke la ak li nga wuute ak liñ la nettali waxal waaw kon ñett yooyu ku ko xam doo sonn kon di nga si mën a yaatal ku ne làmb nag supp la yeel a ngi si mbàq ngi si xëtër ngi si ndax yenn saa nga gis mbër mu njool mais yenn saa nga gis mbëru ndaama ku mel ne euh, un ziga un ziga un wala xaadim anta sek xool ko yomba xottil un mètre mu sol ba desa mu sol ba desa waaw ndaama si li muy intérêt ndaama mooy xotti mais à part xotti intérêt ndaama amu si mais ndaama yëgul njool ah. ndax ndaama boo gis bu doxee nga xam ne ndaama dox na chaque jour ndaamay def ay ay ay ay jaloore si biir stade Papa Sow ndaama la bëri na ba àgg fa punkali Modou Lo ndaama la bëri na ba àgg fa punkali ndaama jógul njool de boo ko déggee jom jaa ku ndaama goo gis mag njëkk ña bu timis jotaan dañ leen tënk parce que seeni i pexe bëri ndaama saa yu la roofoon ñàkk nga waaw mag ñi njëkk ña boo musaana nekk ndaama bu timis jotee dañ lay tënk si inoo nga si jàng ji ndax pexe ndaama ndaama ni ma la ko mën a si ay nit mi ngi mel ne xaru xaru ordinaire boo dugal boo xaru ordinaire nga dugal ko si ay ay ay laadum saa juree doom mu feeñ ndaama tamit noonu la mel ndaama mën nga kaa xeeb waaye bu ñëwee joomam nga doyal waaw loolooy ndaama. Euh, génn nañu nag ci euh, comme ni ma ko waxee ci semaine yu am solo ci wàllu làmb ndax Tapha Tine seen Sène na fi Modou Lo euh, Ama Baldé jàll na fi waaye ki nga xam ne mooy Siteu la di tamit jàll na fi mais ñ ngi jëmaat le premier janvier muy bu am solo. dox ci diggante Modou Lo ak ki nga xam te mooy euh, Boy Niang combat boobu noo ko gisee. non Boy Niang Boy Niang man nga kaa gën lu ne waaye staff mënoo ko koo gën waaw staff baa mandi lambo ak ñoom jéey ñu ngi dox yi jéego boo gisee lu tax mu ne jéey daa ñoom jéey dañoo bokk ci man moom moo xam matti lalam garab garab fa jaar bëccëg xam la muy meññ da nga faa jaar ku fa jaar guddi xam la muy meññ da nga faa jaar bëccëg ndax la mu jàpp se ñoom jiyee ba léegi moo ko arrangé gis nga bi bi sogu pikin bi amee dégg nga si booy ña bu baax a koy def gis nga euh, làmb bu ñëwee nga gis mbër tranquille ñëw heure ñu gérer ko heure mu gañe heure loolu mooy staff bu baax mais mbër moo xamante ni mooy staff bi fu mu jëm foo la yi jëm Siteu mooy staffu boppam jafe-jafe ñëwul yàlla bu mu ñëw si moom mm. mais boo ko xoolee xam ne moo géré mais am na ay capitaine yu nekk si ginnaawam mm. ku si demee ne ay Max ak Max Marga waaw list la waaw dama lay jox exemple rek si mbër mu am gétt ak mbër mu amul gétt gis nga mbër bu amee gétt Modou Lo am na gétt parce que Modou Lo doo ko dégg si biir wi doo ko dégg si dara signature boo déggee kenn dina ñëw dina ñëw Ama Balde ñëw na signature manager am ne dina ñëw ñëwut déggoowuñ mën naa ni déggoowuñ neew ma déggalu ko de mais mun naa ni déggoowuñ buñ déggowoon bu ne day ñëw day ñëw Tay, boo indi won ku melni grand bi yor ah, ci mikaayu Boy Niang mooy grand jey benen bi Tafa bo ñewon CNG ni len ta ah, ah, Boy Niang ngi ñëw wa gëm ni Boy Niang ngi ñew lool moy esaf esaf day jitu sa lamagne ba pare nga def loolu bo ñewé di laaj ana jey mu ne la ma ngi ni togal nga tok loolu moy kilifa mbeur mu am kilifa nak da ngay dan, daan mais mbeur mu si pan kilifa fo dem ñu daan la mala wax li le 1er janvier boña Niang ci victoire digënté mak balagé de 1er janvier muy ndam lu nga xam te bi ma sha allah modlo kërak keroog ci combat bu am solo dox ci diggante Ama balé muy le 5 novembre. ñina ku ci nek jóge ci victoire mais diran bi nga xam té boña taxaw nako diga xaar modlo pour mu génn diggante Ama balé ndax digënté bobu euh, boña mënu fa am lu mu fa ëppalé modlo wala. non waaw waaw boña Niang war na faa mën a liggéey lu risque boña biñ togué ñom ñaar boña mo gëna nek ci nekk liggéey waaw. bi ñu waxee Boy Niang moo dominé Boy ba léegi mi ngi ci làmb ji mais Modou Lo làmb ji gën a jege ngay gën a noyé loolu sam problème parce que tey Thier boo imaginer Ama Baldé bi muy doog a wax ak Modou Lo favori ba lépp Ama lañ ko jox buy génnee faatu lañ waxoon mais bi mu demee bay jege si Ama moom mooy mujj dina butu bàyyi nga xel lool tey bi mu nee bëxër boo dégloo boo Niang da nga naan mi ngi si mais nañ xaaraat boo si kanam bañ jafaat jàkkaarloo nga xool si ngay xamee ba xam Boy Niang bàyyi na ba léegi wala mi ngi si. làmb feeg waxoo toj penc gañ yaa ngi si biir lamb ci mais bis boo waxee toj penc yaa ngi si dëgg sërëx ci ñu bëri ni ci biir face à bi boo ñaa fa mer ndax loolu du ci biir làmb te bu ko indi ci làmb ji sa amul lu mën a gée ci biir euh, combat bi non gaynde goo gis mer la fanaanoo li merum Eumeu la boo ñaa di yóbbu rek ndax boo ñaa bu nee merul moom waxul waxula lu lu lu sportif mën a dégg mais club bu tol noonu di ñàkk di ñàkk ba mu des moom bu la nee merut loolu du waxu sportif war naa mer mer mu ànd ak xel mais Boy Niang dépassé na fu muy mer di demee ak protection bu ko defee si Modou Lo dootu ko defete parce que du ko pardonné da koy dóor waxal te da koy éliminer ñëw ñaari yoon éliminer leen pikin nag waa Pikine gépp war nañ kaa bañ te mu doon mu doon koy waajal de. du xaw a diis. kan euh, diis gann moo tax Boy Niang waa Pikine de est-ce que jot na pour ñu génn jàppale ko wala jotul parce que Thier xoolal Pikine li mu am Thier. ñaari ñaari ñaari ñaari ñaari génération ñaari ñaari ñaari kii ñaari euh, euh, kii ñaa ñaari roi des arènes yu ñëw si gox te kenn bokkul génération est-ce que bàyyi nga xel loolu ñaari roi des arènes yu ñëw si gox te kenn bokkul génération benn bi mooy mooy mooy mooy mooy Siteu kii euh, Eumeu Sène indi na fa benn Tyson indi na fa benn génération Tyson ak génération Manga la woon Manga programme wul woon Tyson si programme tey Tyson bi mu ko dabee daan na ko wala daanu ko. ah Balla Gaye Yékini programme wu ko woon si si général si génération bi ko bala dabee daan na ko wala daanu ko Boy ñaa mhm. sawaay Modou Lo mosu koo programme mosu koo programme da koo dab bokkut ak Ama Baldé daa bëree woon ak Ama mhm. kon génération lañu woon mhm. mais Boy Niang surprise la génne si moom na Modou tey si Boy Niang tey euh, lu mu war a sóor ci Boy Niang non bari na parce que amul lu mu si yàqamti ni mu bëree Ama da lay bëree moom taxaw déglu ko bu ñëwee mu accueillir ko. mais est déglu tamit boo ñaan ñu gis ay pour mu attaquer mbër du xaw a gaaw de. mu du mu mu attaqué mu attaqué njool ban intérêt la am si ndaama. waaw. bu la njool mi mënee xeex da nga dootu ko defati de. am jam waaw da ngay yóotu te moom day jam te bu la dalee sa réseau yàqu. Hmm. kon nga taxaw xaar ko moo gën. Hmm. bu yooru jotee nga yooru bu ga gabaagaar jotee nga def ay coup dégagement. Hmm. loolu gën moo gën ci ndaama. manam dang ma laaj lu gën ci mhm. ma wax lu li gën ci Moodu mais waxewuma ma la ne Moodu beure noonu bu ko nexé sax bu mu def noonu mhm. mais xayan ku ci séeréer ndama fu ko njool yabe fu fu ndaama yebe loxo ya neexul mais Ama Balde ak boyña bokku ñu xex ne won na la Ama Balde boyña mana na sa am lu Ama amut waxuma moy daan de mais dama mana ne man na sa am lu boyña amut lu Ama Balde amut xam lu tax boyña bala balaa bala yanu day lamb ba mu ba oyof bu oyofut mu baye te mën na tej beure kee du laam bam oyof kee day dugg lu mu jël lu mu am jël mm-hmm. bu ko àttanee yëkkati bu ko àttanul jaayante moom Ama Baldé uh-huh. te uh, maanaam teg jeexal mm-hmm. si final la baax mais si quart de final bu sa xaas jeexee doo dem final Ama Baldé day teg lépp si quart de final uh-huh. moo tax bu final jotee du du am dara danaan pëndëng uh-huh. kii nag day teg retien bu final jotee mu génne retien bi waaw résultat jot ku ne ñibbi fooy bëre moo tax bëre boo tegee jeexal te bëre bi jeexut mën nañ la yóotu te doo demaat sa koof mën naa jeex mais dafa am ñoo xam ne dañoo mën a koof a utiliser koof mm-hmm. am ñoo xamante ni mënuñoo utiliser koof mm-hmm. am ku si mel ñi ay nees xataram du gérer koof teg jeexal lay def lu mu am jël genre nit ñooñu da see am ay Pokola Balde day gérer koof parce que Pokola gazelle la fa mu gën a tàngee fa lay doxee dafa am mbër yoo xamante ni tey buñ doon jaay ñooy gën a seer yeneen jours yi dëgg neexul am entraîneur yoo xam ne buñ doon jaay ñooy gën a seer yeneen entraîneurs yi am am am am am tëggkat yoo xam ne buñ doon jaay ñooy gën a seer yeneen tëggkat noonu la mbër yi rawante uh-huh. mais ren li si am bu combat yee taxawee dinañ fi dóor saison boo xamante ni kenn mus ko fee dóor ndax promoteur yi bari nañ waxati lamb yi bari nañ journaliste yi bari nañ te ñëpp a aay dëgg neexul. mi ngi noonu mais comme wax nga tamit euh, li euh, Modou Lo war a sóor ci Boy mais Boy Niang lu war a moytu ci euh, Modou Lo. Boy warul mën a may Modou dara parce que moo gën a féete xale moo gën a nekk booy moom la booy yu yónni ko fu Modou taxaw da ko faa war a fekk énervé ko daan ko Modou boo ko énervé wul doo ko daan ceer mu danga koy réeral. Modou bu réerut mi ngi ci combat day calculer machine bee bax wax naa leen ko Modou xoole bi ko Ama jubee ñaar yoon yi muy arrière yop arrière yi wax la bi mu yeexee da ko gëdd ba xam lan la indi mais bi be gar bi jeexee rek xeexu bopam la yor motul mo mbeur mo xamné day dem ba ci yag mu yor xeexu bopam waaw do xam nu mi xeexee ci xeexu boxeur curux curux xam nga loolu xeexu la bokkut ak xeex bo xamanteni am djom jaay teuf teuf teuf teuf teuf ak teg teggi teg teggi. ba léegi gis Modou Lo day xeex xeexu xeexu làmb. mais Boy di xeex xeexu box. waaw kay xeexu calcul xeexu koos wang mu dal warul dal mu taxaw bokkut ak ki nga xamante day ñëw rek di xeex xeexu làmb Modou daa mën a jaxase nit. jaxase gi mooy doo xam fu mu taxaw Modou nee naa la boo liiree bopp bi ñàkk nga ko dënn bi ngay liir fu mu wàccee nga am ko refaar yi ñëw Modou da nga koy dóor ba mu taxaw nga doog koo jàpp mais doro dóoroo nte mom ba mu taxaw mënoo koo japp te bula jappé day bëré wa loloy e problème mo lim indi combat am ak Ama Baldé ñëpp yaakaar ni Modou mi mom uh, fongatul lamb mais ñu ñëw ñu gis Modou mu simple bëré bëré bëré daan daan mu rëy est-ce que bu ko indi waté digënté mak boyña lolou mëna ci gënë wala. Modou Modou Modou Modou bu lolou yeen lay jaaxal mais man jaaxaluma xam nga lutax moy kula né stade bi Pikine lañ koy défaré buñ ko defaree nga ték mag ñu ték ci suuf ma daan la mu nekk pikin mu affaire ba am fa bu ko nexé ñëwé yaramu neen ndax man sa waxu daaw ma laa indi xamné ki paré pare na combat bi xaayaan ku dégg séeréer dégg nga ba muy wax bobu booba defaraguñ stade bi kon buñ defaree stade bi bu ko nexé ñëw ak yaramu neen mais est-ce que bu fekké ne ñëw ak yaramu neen ma xamné changer na ci mikaay waxon na la bu ma roi de zaren ñu xamné ki koy jël ak ñako daan jël bokku mais tamit dañ def taxaw seetlu ñu jël roi des premier combat dañ ko gagné mais deuxième dañ ko perdre Balla dafa gagné premier combat deuxième mu perdre ko diggante ak Bombardier tey Eumeu Sène gagné premier combat am diggante ak euh, suma jumlay Bombardier deuxième mu perdre ko ko modul Lo ko Eumeu Sène dong moo nekk koo xamante ni roi dem ji ko ñu ko mais à part Eumeu Sène kenn ku ne deuxième lañ ko nangoo ba mu des Yékini. Modou Lo réussir na benn bi. waaw Modou Lo tey jii moog Balla Gaye cinquante cinquante. bu daanee bii la la wax toj pikit ñu tam ko vampire ku ne xam na ni xarañ gi àgg na si lool xarañ la mais bu daanee booy ñaa muy xarañ lool te kenn du ko nangu te kenn du ko sañ a bañ mais booy ñaa bu daanee sawaay Modou Lo nekk koo xamante ni caaro yeeg Pikine mooy njëkk daan Modou Lo ba pare jël si roi des arènes nekk troisième li troisième li titre bu bu bu Pikine jër si roi des arènes. mairie bi la soxla non Modou bu daanoo mairie ba mooy borom dëgg neexul. waaw bu daanee mooy boroom mais bu daanu eh, nag Boy Niang moom moom monument Pikine dégg nga wax bi Boy Niang dañ kaa war a sampal monument Pikine mhm. acteur bi gën a garaaw la daan mhm. acteur bi sonal seen i mbokk la daan te loolu moo am solo gis nga mbër da ngay fekk ku daan say mag daan say xarit daan say lépp nga daan ko mhm. duñ ko fàtte ba keroog ñuy dee motax tax bëre bi teg jeexal la ci boyña Niang jeexal la ci modlo dama ne won lamb teg jeexal amna ci ñu wéddi ko xoola ñaari intérêt yoy ci am ku si perte intérêt yoy do jeexal mais ku ci gagné lool do tekki motax tax jeexal. mëna jeexé jeexee jeex kaaw dóor mu daanu dóor mu nelaw. Ah, pourquoi pas boyña loxo ya 10 boyña musul dóor nit mu daanu lamb ji war na ci mëna a nit mu kaaw modlo Lo bo démé ci modlo bo démé ci loxo bi bañu gaay la lay woon waaw les deux naan la kayre ngi leste diwa ngi nii loxo bi xaw ma ñu ko xamul mais am na mbër yu ko xam si Modou Modou xoolal tollu ni mbër yi mais jël na li mbër yëpp soxla uh-huh. te boolewu si wax te boolewu si wax te Modou waxoon naa leen dañ dugg si poids lourd ñu laaj ma ne ma làmb Modou Lo du am si poids lourd parce dañ kaa sàcc doole xool fu mu jaar ba ñëw uh-huh. moo la muy am suba la muy am suba yàlla rek ko xam tey téye na roi des arènes uh-huh. waxal Modou bu daanoon Balla Gaye bu ko neexoon tekki na ngembam mais ku daan Balla Gaye a ñor Modou Lo daan Balla Gaye moo ñor Modou Lo kenn ko si daanagum. waaw <laughs> xaayaan mm, ku dégg séeréer muy Bombardier. Uh-huh. à part Bombardier ku daan bala Gaye daanagu ko. te mi ngi daan koy ñuy daan Balla Gaye mm-hmm. ndax bu daane kii daan ku daan Balla Gaye daanati ku daan Balla Gaye uh-huh. ndax Eumeu Sène daan na Balla Gaye mu daan ko ñaari ba daan na Ama Baldé ñaari yoon mm-hmm. bu daane kii muy cinq uh-huh. cinq zéro mi ngi am na solo kooku mooy làmbaloog dégg nga kàddu yi nga xamante ne bi wax na ko ci entre Modou a ak ki nga xamante ne mooy Ama Baldé nee naa la saa boo saa boo rek boo jàkkaar ak moom xol day sedd ndax li wax macha allah mën na ko maîtriser na ko tam mi ngi ciy wax lu am solo ETDR établissement Touba Darou Rahman de entreprises bu mag bu ci BTP travaux de bâtiment génie civil Madame lépp lu jëm ci wàllum tabax kër réhabilité wala réfectionné dañu établissement Touba Darou Rahman Sulanehe la neexee mën nañ laa jox gros œuvre ak second œuvre gros œuvre fondation élevée tabac houle ak raax ci second œuvre bi nag ci électricité ak plomberie ETDR boutique